kilifa gi ginnaaw bañ leen bañ leen jaalee yéen ñi nga xam ne yéen dëkk fi nga xam ne gu mooy Ngor ñu déggaat beneen cas de décès ginnaaw euh, ay altercation boo xam ne au nom de Marie Gueye amoon problème ak benn commissaire fii ba mu jotee ñàkk bakkanam ñu bëggoon xam euh, mbir mi nu demee les témoignages. waaw salaamaaleykum baax mbir mi daal nu mu demee man suma kër la ma fekk démb parce que fii laa nekkoon ba benn heure bi après ma dem bi ma demee kër ga toog tuuti ak soxna si si la ma sama benn frère. oowee téléphone dama foo nekk ma ne ko man maa ngi nii kër ga mu ne ma ana Babaros Babaros suma benn grand sœur la moom moo yar Marie Guèye quoi Marie Guèye si moom la ne woon mu ne ma ndax doo ko oo téléphone naka Marie Guèye dafa dafa daanu fii mais ñu ngi koy pour mu jog mais mënul jóg man de Babaros de xam naa peut-être mu nekk këram wala mu dem liggéey mun ne ko boo ko mënee oo nga oo ko ma ne ko waa xaaral si laa jël sama téléphone woo Babaros naka foo ne. mu ne maa ngi di dem booru géej ma ne ah, dañ ma woo na ma marigéré dafa daanu si tali ba moom max gendarme yi la woon mais ñu ngi koy yéeg pour mu jog mais mënul jog mu ne moom de ay xale ñoo ñëw du di wax sa ka kër ga mu ngi di dem booru géej ma ah, kon baax na si laa génnee tamit wax ko sama benn frère mais comme fan yi tamit moom it dafa am am moom mu ne moom bon ko mënagul dem quoi ma ne ko kon ok amul problème si laa duggaatee su ma nekk soxna si laaj ma mën a ko ah Marie de laaj ma ne moo daanu fële nangam ma ma ne ko mënuma a ko xaaw même pas dix minutes sama frère bi mu doon wax ne Marie Gueye moo daanu fële si la ñëwaat ne ma Marie Gueye dee na ma ne ko si naka mënuma dee na ma ne ko dee na si laa jëlaat suma oh, suma téléphone woo suma euh, sœur bi fekk téléphone bi mu ngi si doomam bu jigéen ma ne ko wala li may dégg nag mu ne noonu la demee ma ne ko ah mënuma waaw si laa sol suma yére na soxna si ma ñëw. sama frère bi na ma léegi fekk ñu hôpital fekk ñoom jël na am na ay xale yu ko jël fii si li ma dégg ba yóbbu ko hôpital te biñ ñëwee rek médecin bi leen arrivé mort la maanaam bu muy ñëw fekk na moom arrivé mort maanaam bu muy ñëw fekk na moom dee na il paraît que fi leen fekk si plage bi di leen laaj carte ay vers vingt et une heures vingt deux heures. moom laa nekkoon si plage bi. toog di féexlu ay moroomam di féexlu. moo xam benn xaritam bu jigéen ñoo toog si liñ ma wax daal mu ngi yor benn hamburger di ko lekk. ñu laaj xaritam bu jigéen bi carte d'identité mu wone ko si téléphone am parce que nee na dafa fàtte carte d'identité këram moom ñu laaj ko carte d'identité mu génne carte d'identité si pochetam won ko gendarme bi. mu ngeex pièce ba wone ko dégg naa ne si li ma dégg bu mu ko wonee gendarme bi si la ko xool naka yow vrai doomaraam nga xaw ma waa gendarme bi naka yow vrai doomaraam la xàmmee naa la mu ne ko nag man waroo ma wax doomaraam parce que suma yaay jurul doomaraam si laa si lañ naka daal embarqué si lañ ko naa si lañ ko jël yóbbu ko si lañ ko déggoon nag seen oto te bu muy dem mu doon dox di dem xaar ñoom si li ma dégg parce que man fekk ma fi ñi wax nañ ma loolu hôpital lañ ma la demee. dañ ko torturé. biñ ko dugalee si biir xam naa dañ ko torturé il fa la fa la gaañoo nag dee na si lañ ko génnee teg ko fii si parking bi dem seen yoon. teg ko fii dañ ko rey ba pare dem seen yoon daw dem. xaw ma nag lan lañ ko war a dóor wala lan lañ ko war a def mais ñoom ñoo ko jël muy dox ba seen oto ñu dugal ko si biir voilà. biñ ko dugalee si biir ay presque vingt vingt cinq minutes trente minutes yi ñu ma wax si lañ ñëwaate fekk moom voilà génn na àdduna si lañ ko génnee teg ko fii si parking bi taal seen oto dem. ban gendarmerie la. gendarmerie Wakaam ah parce que ñoom nekkatuñu Ngor ñu ngi Wakaam il paraît que def naa gendarmerie Wakaam la mais ndaw si man suma doom la ndax ma baayam ñoo bokk benn baay sama kër sër la nekkoon ndaw si ak ñaari doomam yu góor ay seex. la fi bàyyi yu mënagul dox sama kër mag bu jigéen la ne moom commerçant la doon commerçante la doon def waaw commerçante la doon def. lan la def ci yéen ñi nga xam mais naxar naxar bu rëy rëy sax loo xamante ne nii kenn mënu ko kenn mënu ko expliquer lu ñu bett lu ñu naxari lu ñu naxari la. ndax laaj karante rek ba lii lépp xaw si maanaam doy na waar daal voilà doy na waar trop ba pare fekk fi mbooloo mu bëri parce que ñun fi la ñuy féexloo fi lañ am si plage bi fii dafa tàng mais vingt heures vingt et une heures vingt deux ji ñëw di laaj karante bu la wonee karante kay waroo ko traité de de doomaraam bu fekkee ñoom respecté nañ nit ñi ay homme de tenue lañ dañ fi ñëw dañ ñoom dañ fi ne pour askan bi quoi dañ la war a protéger ba pas du torturer ay nit ba di leen rey loolu moom c'est lu doy waar la daal wax fa dëgg te ñu ngi koy naxaru waaw li nag dañ bëgg rek ñu jël si ay matukaay yu ferm mhm. voilà parce que du yoon. Mhm. la famille ñoom nan lañ nan lañ gis yëgee nouvelle bi. waaw ni ma ko yëgee rek am na famille ñoom sama ni ma ko yëgee lañ ko yëgee parce que ñenn ñi kër gi la leen fekk man mi di wax yow suma kër la ma fekk waaw ñoom noonu lañ ko yëgee fekku fi kenn si famille bi mhm. ay jàmbur daal la fi fekk ax moom ku mu àndaloon ñu toog ax ñoo xamante ni daal fekk na leen fi ñu woon si wet gi toog ñoom ñëpp. ki mu leen lépp benn wax bi lañ wax fekk nañ ñu toog di laaj quarante laaj nañ ko quarante jox nañ leen quarante ñu traité ko de doomaraam ay essence de parole am si bañ ñu koy yëkkee naka embarqué ni ñu koy yëkkee di ko yóbbu. laaj quarante c'est fréquent des fois dañ fiy ñëw nag des fois quoi dañ fiy ñëw weekend bi di laaj quarante boo weesoo quarante ñu dem bàyyi la. léegi pour euh, euh, moom koor bi defaguñu enterrement bi parce que démb si guddi la xew instant bi koor bi mu ngi hôpital dañuy def autopsie waaw. Euh, non génnagul démb la woon démb si guddi sama benn frère mu ngi fa sax instant bi nii kon kii bi lañuy xaar daal. waaw amaguñu benn xibaar si ñoom buñ ko reyee daal ba di génn ko tekkee fii pare si lañ taal seen oto dem seen yoon si lañ ñu wax si lañ dem seen yoon ñoom. génnee ko te ko fi nank dem voilà jaajëf waaw d'abord dañuy masawu waa Ngor gépp tey bu ngeen ñëw bu ngeen ñëwee tey sax xam ne tey dëkk bi seen xol yi neexul ñu ngi si naqar man démb affaire bi fii la ma fekk dama nekk si suuf comme ñun ñoo yor sécurité bi fii mm. nekk fii ak booy yi démb ñoom dañ doon ñëw pour def raafal démb bi ñëwee man si suuf la ma fekk biñ ma fekkee si suuf ñu taxaw di waxtaan nakati ñoom ñu ngi interpellé soxna si fële si koñ bi si jullukaay bi jaarax moom nii après man fii laa fekk seen oto si laa toogee si suuf am boo xamante ne moom mu ngi fi woon moom moo ma woose bii ma woosee mu ne ma soxna si mu ngi daanu si biir oto gendarme yi ñoom dañuy yaakaar ne woon ay affaire de rab la sax parce que moom xam nga jigéen ñi des fois da nga leen di wala yooyu dañuy yaakaar ne woon ay affaire de bi ma ñëwee maa ngi ñëw fekk leen seen oto mu ngi gaare fi bi mu ñu jël soxna si ñu ngi ko wéer si oto bi man bi ma ñëwee automatiquement dama yaakaar ne woon soxna si daa xari léegi bi ma ko déplacé fekk ñoom ñuy dem ma yëkki ka am waa ji ma woosi woon ñoo moo jàpp ñu jàpp ñu yëkki ko ñu dem tëral ko ne la si bi na le biñ ko tëralee man si laa ko vérifié première bi maa ko njëkk a vérifié ba xam ma xool gis ne nokkiwul deful dara ma taxaw gars yi taxaw ma ne leen pour ñu parce que kii fi mu toll nii moom dundatul décédé na mais ñi taxawoon ñoom mënu woon mënuñu woon a gëm loolu après si laa oowee ay waa këram téléphone comme ñun ma moom ñoo bokk benn koñ mbokk la si man mbokk la si ñëpp ñun ñoo bokk benn koñ suñu kër yi ñoo jàkkaarloo bi ma ñëwee ñu woo sapeur yi parce yaa ngi jóge si aéroport bu Yoff bi war a ñëw bi ñuy ñëw nag mu xaw a retard si la bi mu ñëwee mu fekk soxna si fi mu tëdd moo wax avant mu laa ñëw ma ne ko nag soxna si daa décédé ñoom nag mënuñu ko woon a gëm si lañ ko jël dugal ko si taxi bi ñu ko dugalee si taxi bi ñu jël yóbbu hôpital bi ñu yóbbu hôpital ñu ne leen soxna si décédé na si lañ ma oo man na ma li nga doon wax moo am ma ne leen la demee parce que man bi ma kat xoolee xoolaat ka laa xam ne kii moom say ba yaram bi ah. man moom wax dëgg yàlla li ma leen di wax moo la man fekkew ma biñ kaa laal fekkew ñu biñ kaa dóor mm. dañ ñu woo nañu dafa daanu ay rab si biir oto bi ñu ñëw fekke ka fi mais am na ñoo xamante ne ñoom fi lañ leen fekk ñoom ñu ngi taxawoon fii te ay wàngoor lañ mm. bi action bi am fa leen fekka mais man fekkuma ñu di ko dóor wala ñu di ko def dara li ma ñëw dama fekkee ñu ngi ko wéer si oto bi ma laaj leen ñu ne ma ndax daanu si biir oto bi après ñoom ñu génne ko oto bi ñoom que ñi ko fekkee ñoom nee bi commandant ba jigéen bi yéegee mu ngi ñëw di àllu si kaw yi gendarme yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon si oto bi que ñi fekkee loolu ñoom ñoo ma ko wax parce que nee nañ commandant ba jigéen bi si boppam moo ñëw doon aalu si kaw yi gendarme yeneen yi après ñun comme xamante nañ suñu biir ñoom xam nañ ñun xam nañ leen comme ñun tamit ñoo fi nekk ak ñoom ma ne leen xaaral ñu jël ko ñu wéer ko ne bi ñu ko jëlee ñu wéer ne la ñoom ñu taal seen oto yi dem ñu dem léegi biñ ne ma soxna si dafa dese man maa jël suma portable ma woo commandant bi directement xamal na ko soxna si dafa décédé dama ne ko soxna si dafa décédé dama ko woo mu ne man lan moo leen si wóor ma ne ko ñoo ko jël yóbbu ko hôpital bi ñu demee hôpital lañ leen dafa décédé te mu ngi si hôpital Ngor bi ñoom ñu ne ñu ngi jógee du Wakaam léegi dem si hôpital Ngor bi après si lañ quitté ñoom Wakaam dem si hôpital Ngor bi pour xool corps bi foofu si hôpital Ngor bi mais man moom wax dëgg yàlla xanaa ñeneen ñi fekkoon mën nañ laa wax dara mais man mii ko yëkki tekk moom gisuma si moom blessure non biñ koy interpellé fekk ma ko bi mu daanu lañ ma woo si woose ma man maa ñëw yëkki ka jël sumay responsabilité comme mbokk la te ñoo dëkk si dëkk bi balaa kenn laal laal ñu ñu yëkki ka ba pare déplacé ka pour xool lan la si lañ xamee ne nag fi mu toll nii saye xam naa dafa yorul woon carte d'identité wala leneen ndax leneen moo tax sax ñu àndax moom mais bu yoru woon carte duñ ko jël parce que am na ñu bëri ñu ngi leen bàyyi woon si place bi ñu ngi seen carte dañ leen laaj carte d'identité ñu génne seen i non moment boobu moom man moom bi ma ko laalee automatiquement la ma xam ne c'est fini ñun am na laa xamante ne moom du la bees suñu kaw parce que au moins am na laa xamante ne xam nañ ñu ko yéekee ma yéeki déplacé xool xoolaat dara yëngatuwul si moom fonctionné wul deful dara si laa xam ne gaañu ma wax leen que ñoom gëmuñu ko. xamoon ngeen Marie Gueye euh, fii la daan liggéey. Euh, mosu fee jóg ba démb démb démb démb mu ngi woon si place moo tax ñu fekkee si place comportement bi mu gën a am moom mënu la romb fii te ba rombee fii kenn dootul toog benn place ñëpp la rey def lépp parce que moom ñëpp la amal jàmm fii si biir ngox am na nit ñoo xamante ne noonu la leen yàlla bindee bu ñu rombee moom naa def ñu reeloo ñëpp wala ñu kontaanloo ñëpp moom bu la fekkee di wax ay yow sax nga mer moom si boppam day énervé wu man moom su ma waay woon dafa doon koo xamante ne su ma waay la woon automatiquement chaque jour dañ doon ñëw bu ñëwee damay fekk fii tooñ ma ba pare soog a dem moom noonu dama yeba yeba yeba ba yàqu te yàlla moo def moo tax ma yem si démb non loolu am na loo xamante ne xam noonu am na loo xamante ne boo ko yàggee gis moom mu amul mu lay def dina métti nag dëgg la parce que day métti parce que fi mu xewe la action bi ni mu amee la moo tax muy métti loolu day métti mais lii la waral lii yëpp di fi am nii gendarmerie di fi ñëw chaque jour la andi ay problème pour man wax ji wax ji ma ne waa Ngor yi ñoo war a jël seen i matuwaay gendarme yi jër andiwul leen fi action bi avant mu laa am démb am na benn booy bañ doon seeti fii nee na boy bi benn ma mu civil lu ànd ak benn gel mu ñëw mu luwee ko ab tante fii si suuf biñ ko luwee tante nag kii ko bi doon jàppante gel bi mbaj gel bi bi mu mbajee gel bi nag moo tax après waa ji oote ma yi ñëw fi biñ ñëwee nag doon vérifier far tombe si moom. du moom rek lañ jàpp am na ñu bëri yu bëri dañ jàppoon mais gars yi waa Ngor yi ñoo war a jël seen i matuwaay gis nga ñun liñ mën a liggéey sax du waa gendarmerie mënuñu ko ñun jeunes yi ñoo war a jël seen i matuwaay jekkal seen ab dëkk ba gendarmerie dootul am accès sax war a ñu di ko mu la def ay intervention am na laa xamante ne pour man waa village bi ñoo si war a jiitu balaa dara laa xew parce ni mu xewee daa métti waa Ngor ah, gendarmerie bañ fekkoon na neexewuñu gendarmerie yi duñ jógee la déplacé wu la ñëw la dugg si village bi wala la dugg ba si biir la def ay rafal ñun am nañ benn habitude baa xamante ne moo nekk si ñun ñun lañ jàmmaarloo jàmmaarloo ak gendarmerie yi tamit ba jàmm jotee ñëpp a la taxaw ñu nekk si jàmm parce que bi ñu istuwaar ak ñoom fii si parking bi istuwaar nañ fi istuwaar ba métti ay nit dee fi te terewul ñoom dañ doon jóge si parking bi di dox ak seen tenue dugg si biir dëkk bi di jënd aw lekk kenn du leen wax tooy na kenn du leen wax ñor te da doon xew fii ñoom xam nañ loolu du ci laal kenn ni la ñoo rombee ñoom wala nga fekk ne ñu la jënd ndékki sax nga jëndal leen ndékki parce que à chaque fois dañ ñu doon romb ni la dugg ci biir bi te kenn du leen songa xam nga des fois fi ñuy teg jikki lébu la wala leneen ndax leneen dañ yaakaar ne dañuy agressif wala leneen or que ne demewul noonu xam nga ñoom moom dëgg moo leen sonal nit ki nag doole am na fa moo toll da mujjee fépp waaw nag loolu moo jar a wax am na laa xamante ni nit ñi dañ ko war a wax te dee fii comportement bi moo baaxul comportement bi am fii moo rafetul ba rafetoon gendarmerie du fi am accès parce que ñun am na ñoo xamante ne suñuy mag la ñooñu fi jiitu te liy am fii masula am si masula xew fi ba gendarmerie di fi ñëw tout le temps tout le semaine bi rek li fi gendarmerie ñëw kenn mënu laa xam wax ni mu toll semaine bi rek depuis vendredi ba tey ji gendarmerie chaque jour mu ñëw fi ba démb démb la mujjee ba am fi man xam man si place bi laa liggéey dama fee vacances élève la si place bi laa liggéey mais action bi ñu ko jëlee fekkee moo ko mais action ba laa fekk bi ñu ko jëlee ba indi ko di ko génne suñ place lañ jaar sama place man bi ñëwee ba fu fi leen taxawee nañu gars yi dindi leen tente yi si la ñuy dindee tente yi noonu si la sama beneen grand bi may liggéeyal ñëw di expliquer commandant bi naan ko kii nii xawtu wér bàyyi leen ko di négocier commandant bi jeex-jeex ne kii su ma ko naree bàyyi sumi sama tenue bi jox leen ko ndax ñu ak yéen xamante nañ. ban commandant moo wax loolu. commandant bu jigéen moo ne kii suma ma ko naree bàyyi sumi sama tenue bi jox leen ko ndax ñu ak yéen xamante nañ c'est-à-dire di wax ne ñun ak waa Ngor xamante nañ comprendre nga léegi ndaw si si lay expliqué di wax ne ñii laaj leen ma carte d'identité mu wan leen pièce quel est problème laaj leen ma carte war wan naa leen pièce quel est le problème les commandant bi moo jeex-jeex waxaat ne kii daf ñoo manque de respect kii waruñoo manque de respect donte wan nañu pièce mais waruñoo manque de ndax. ñun manque de ñu manque ñu ko respect kon waruñoo manque de respect ndax si la nekk foofu di àll di wax di wax si la ko commandant bu waxee gars yi yóbbu leen ko si leen demee ba si port bi ñu wax ndaw si jaaral nii ndaw si giñ si sëriñam ne nii laay jaar fa mu wax na fa lay jaar fa la mujjee jaar sax yéeg bi ñu yéegee ba génn si place bi boobu laa si mujjee xam lu bari nag. après nga dégg ne ñàkk na bakkanam. waaw euh, si nga déggee loolu yow ban jàngat nga si def. non si sens laa dégg ñu woo mbaaw kii jaay foofu jën ñu ne kii pompé nañ ko à gaz euh, yóbbu nañ ko hôpital ñàkk na bakkanam ma ne loolu dafa gaaw te ndaw si bi muy dem noonu moo ngi wax ak moo ngi wax ak gars yi di wax di teg metti di wax lu metti sax waaw. mais action laa fekk. non wax dëgg ba nee na leen wan naa leen sama pièce quel la le problème luy problème bi pièce ngeen ma laaj wan naa leen ko kay lan mooy problème bi. léegi commandant moo ne kii daf ñoo manque de respect mais manque de respect boo mu wax man mu fekkee mu loolu la ñuy wax moom kii daf ñoo manque de waruñoo manque de wax da sama beneen grand bi may liggéeyal moo ñëw di expliquer commandant bi naan kii euh, bàyyi ko kii wérut comprendre nga man leeruma ba xam wér na wala wérut mais grand bi may liggéeyal foofu moo ne kii bàyyi ko kii wérut xawta wér comprendre loolu la wax commandant bi commandant bi même ne même bu wérut c'est waruñoo manque de respect